suñu fi nga xam ne jëm na ko delloo ko ca ba nga xam ne yàlla suñu def soo suñu yokku dara ba comme ko fi ba ba ci suñu ba gën ko ay maamam sallallahu alayhi wa sallam ana jëlisu man zakarani képp koo xam ne tudd na maa ngi teew maa nga toog fa moom képp ku ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent gi teew fi yow moo tax mu ne anta baax taar nag mooy lu rafet waaw yonent day bu ko mooy taar mbindeef yi ndax bi ko yàlla bindee ci la bind mboole mbindeef yi yëpp waaw ñu ne bind na ko ci njëkk barab barab mooy eh, léew tuwaar yokk place mooy loo xam ne nit mën na faa nekk ñu ne bon nag jawhar la am nag bu fekkee jawhar la jawhar soxla na barab ab arad la arad mooy melo ñuul mbaa xonq mbaa weex kuku soxloon barab dégg ñu ne jawhar la jawhar nag mooy loo xam ne ku ko gis ne li ne nangam la ñu ne jawhar la nag waaye yàlla mi naa mën naa bind jawhar ci lu dul barab yonent salaa sallam mooy xaqiqatu muhammadiya mooy njëkk mooy njëkk barab barab bu mu xam ba mu ko ba ko yàlla di bind bindul barab mu dee loolu naan te loolu laa aka lam yakun kum lu kaw nin wala maa salan sawi saxaawo mu ne yonent salaatu sallam bu taxutoo nag moom yàlla du bind dara waxoon na leen ko mu ngi koy waxaat ndax yonent moom moo leeram gi ci la yàlla bind lépp te bu takkutoon moom kenn du texe moom moom moom texe ndax mooy ramb keroog keroog bi nga xamee ne yàlla wax na jant bi dañ koy yiise ba nga xam ne genn wàll mètre la yuur yi di xet boo ñu daw safara na dana la ki ñëpp ku daa ku gëm ak ku gëmut ñu daw ñëw ñëw ci aadama aadama ne nafsi nafsi nafsi man taluma sama bopp a taluma xawaa sama bopp rek laa tal ndax لكونا قرب قبل وايد من انت انت النوحين من يوش النوحين من النفسي نفسي ما اسمع ببرك العطل آه، نخيانا لو ناس بنين نو وايد من انت ابراهيم من يوش ابراهيم من النفسي نفسي وايد من انت آه، محمد صلى الله عليه وسلم بيجي ما شيء محمد نك صلى الله عليه وسلم من من ما كو يلو لا من ما كو يلو ما كو يلو بغا سجود يلا نكو بول سجود في لا جو جوخلا mu daal di ne na sa na safara dand mooy maqaam maqaam mahmoud bi bi nga xam ne moom la mooy mooy drapeau bi nga xam ne keroog daañ ko sampal ne wane ne moo ram mboolem bu def yi maqaam mahmoudan boobu la alquran wax ne mooy keroog bu ko defee mu daal di la mu ne safara na sori ba nga xam ne ñe ñiy dem xal jànn dem nañ xal jànn ñi ci des mu lakk leen booba day bu taxuloon yónnee sallallahu alayhi wa sallam bu bonnee sabara ñëpp lay lakk moo tax mu ne lawla law lam yakun law lam yakun kullu kawnin wala ma zaala an saqa taxuloon loolu lay texee di du dañ daa min kal wujuud hatta sanaarat min maqaabida dawil anbiyaa mu ne leer yi day mboolem yónnent yi sallallahu alayhi yónnent yi al islam mboolem li ñu am ci leer ak ci jàmbaar ak xam-xam te lépp li mooy problème yi ngeen ko àndaloo mooy ak nag bi nga xam ne mooy taal suñ taal loolu la ñu loolu la ñu ndax daal di ñëw di mar seen tànk ya mu tiit ni yéeg yéen mu ngeen dox daal di fab seen lex yi di ko di ko rëdd di ko di def ci seen lupp ya moom de lupp yonent yàlla Aaroona ak yonent yàlla Muusa ak gaynde yi ak ak tene yi ak mafar yi fab seen lupp yi seen lex yi di ko tëral ci seen lupp yi mu tiit ne yéen lu ngeen lu ngeen doon mu ne yàllaa ñu yónni loolu lépp de barke bi la sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne toobaay na da loolu de daa leer min ka ci yow joodu mboolem bi ñëpp yëpp ci loolu yam wala min ka kullu mujizaatun ajizaan tade arasu yaaw mu ne yooyu mujizaat yooyu de def nañ ko yëpp day ba ku ko ku ko jëli ci yónent sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax yonent yi yàlla mboolem ku ci nekk def mujjisaat boo xam ne kenn mësu koo dégg waaw moo ne anta lil karbi kaasifun moo koy sun inaata naal ba saa wa taraawo anta yow yonent salaatu salaam kaasifun aju yaay aji huj mi li jàq te yaay aji xettali ku bëgg xettali ko xool yonent salaatu mu xettil la cofeelu yonent sallallahu alayhi wa sallam ci nii ñuy di xamee xaj dina ci la ñuy di xamee xaj laaxira boo ko soppee doo loo bëgg xam loo bëgg doo doo ñàkk dara kon nag yal nañu yàlla may cofeelu yonent sallallahu alayhi wa sallam waaye kat cofee cofeelu yonent kat bokk na ci ah lépp loo xam ne sunna la nga ko lépp loo xam ne farata la nga def ko lépp luy xaaye nga ba waaye ndax yàlla daf ko lu la ko wax lu ko daf ko xebal dañu ni digle lu baax ak di tere lu bon bon nag bon ne sopp naa yonent sallallahu te lu la neex nga def lu la neex nga wax lu la neex ke bon ko soppoo ko sopp yonent sallallahu alayhi mooy topp ay jeexitam ya léegi nag mu wax ne naa la min kal huda sa woohu bifadli man man karimin yuni loo man i saa mu ne nit ñi képp ko ab lislaam yonent sallallahu moo tax bu tax ak yonent Ah, eles lá